Merci Babacar. Je pense que, comme vous le constatez, cette fête, c'est la fête euh, de la jeunesse, c'est la fête des Tiawanois. Parce que cette année, Tiawan n'a pas eu l'occasion d'organiser les 9 Navetan du simple fait heureux que euh, le stade Elagé Moussa Fagnan, le stade municipal, est en train d'être euh, engazonné. C'est tout heureux pour nous, mais nous avions prévu pour cette année d'organiser un tournoi avec euh, et les zones la première édition du trophée TBF, mais étant entendu que les navettes n'ont pas eu lieu, mais qu'il y avait d'autres euh, terrains qui étaient disponibles, notamment le terrain communément appelé préfecture et les champs de course. Les jeunes avaient exprimé le souhait à travers la commission sportive d'organiser un tournoi de football. Aujourd'hui, nous sommes euh, euh, à la fin de ce tournoi et nous sommes heureux de constater que 44 ASC de Tuawan ont participé à ce tournoi. Et comme je le disais ce matin, à l'ASC Léona, à l'ASC Kerbakar, euh, je pense que euh, la compétition a déjà eu lieu. Aujourd'hui, c'est la fête de la jeunesse, c'est la fête de, de Je dis c'est la fête de Tuareg parce que vous avez ici à ma, droite M. Chertigan le premier adjoint au maire, mais qui est là à double titre pour son propre compte d'abord, en tant qu'autorité, en tant qu'ancien député, en tant que premier adjoint au maire, mais également représentant du maire qui présentement est en déplacement à l'étranger. J'ai eu également le bonheur de recevoir aujourd'hui avec nous mon frère, et là, j'ai Abdoulaye Ndiaye Ngalgou, qui est donc le président de Ande Defar Tiawan, qui a fait le déplacement pour venir m'honorer de sa présence avec une forte délégation, parce que tout simplement, effectivement, comme nous l'avons dit à la face du monde, Tiawan est un et indivisible, et tout ce que nous faisons, nous le faisons pour notre commune. Et je dois même dire qu'il m'a fait le plaisir de m'offrir 500 000 francs une enveloppe en guise de soutien à ce tournoi, dont le vainqueur recevra 1 million le vaincu 500 000. Mais j'ai prévu également, ça c'était la surprise, de primer les équipes de Tiawan. La Les Dames de Tiawan va recevoir une enveloppe de 500 000 francs, un jeu de maillot, deux ballons de compétition. Et la même chose également pour l'ASC Kouli. Ce que Ablaï vient de me donner va me permettre également de primer les anciens footballeurs, les anciens sportifs de Tiawan qui sont venus très en masse aujourd'hui. Tout compte fait, donc, vous constaterez que la population s'est déplacée en masse malgré la chaleur parce que Tiawan est une ville sportive qui aime le sport, où nous avons beaucoup de talents qui certainement vont éclore avec l'amélioration des conditions au niveau du stade municipal de, de Tuawan. est à dire, côté politique, c'est la reconstruction de la famille présidentielle ici dans la cité religieuse oui, ça s'est déjà fait depuis après les, locales. Hein. Je pense que euh, nous avons confirmé avec les législatives, on est parti comme un seul homme. Et aujourd'hui encore, nous sommes en train de, euh, euh, démontrer que nous sommes là pour Tuawan d'abord, quels que puissent être nos intérêts personnels, Tuawan d'abord avant tout. C'est pourquoi d'ailleurs je salue la présence de toutes ces autorités politiques qui sont venues à mes côtés aujourd'hui pour me rassurer comme moi je le ferai en tout cas s'ils organisaient la même chose Wa man euh, mangi sante yalla bu baax a baax gannaaw bi nga xamanteni ni lu toll ci ñen fuk ak ñeent ci ay ASC participer nañ ci première édition bi ñuy woowee le trophée TBF Tivaouane ba faw comme ni ngeen ko xamee Tivaouane ba faw ben association la bo xam dafa jog si si ma wan ci bëgg si wane rek suñu bëgg Tiwaawan suñu taxawu Tiwaawan maanaam lépp loo xamante ne nii dafa laal Tiwaawan secteur yëpp ñu ngi ci tey jii nag final bi ñu ngi xamante ne nii ñi ngi ko waroon football avant gàmmu ñu xam ni gàmmu moom bu jotee dañuy fàtte lépp ñu bàyyi ba gàmmu gi passé ñu bañ balaa école di sori ñu football ko tey jii soo gisee nga xam ni feetu waa Tiwaawan la feetu jeunesse bi la tey li muy tàng tàng gis ngeen nit ñi ni ñu boolowee ñëw waaye nag li ma gën a neex ci ñëw bi su ngeen seetloo ñii ma taxawal ak ñi ñëw ci tribune bi ku mel ni le député honorable Cheikh Tidiane Diouf ñëw fi ci cëru boppam ñëwul fi également le maire bi nga xamante ni mi ngi élève à l'étranger le maire ma loolu moo tax du mën a teew mais également mon frère Abdoulaye Ndiaye Ngalgou bi nga xamante ni tey dimanche bi li muy xat-xat jógee na Dakar ñëw ngir sagale ma bokk ak man bés bi yamu mu yëkkatiwaat téeméeri junni ni ma lii maa la ko dimbalee biir li nga xamante ni moom ngay organiser looloo waral d'ailleurs gannaaw bi ñu xamee ni dinañ jox de bi nous tolu ci 1 million 28 500 000 même les demi-finances, amna luñu a di jox tay prévoir nañ également primer la SL Damas jox leen enveloppe 500 000 je demande deux ballons jox la même chose à la SC Kouli waye téméré bobu dinañu les anciens sportif de Tivaouane nga xam ne ñëw nañ en masse ngir fekke lii ñoom tamit ñu am loo xamante ni dinañ leen ko jagleel tey daal am nañu mbégte gannaaw bi nga xam ne amul te li tax nawetaan amul nak lu neex rek la ndax bu leen fàtte ni dama mayoon Tivaouane sept mille cinq cent mètres carrés euh, ci gazon synthétique loolu nag la monsieur le maire nekk di lal ci stade bi moo tax amul waaye commission sportive bu TBF bi nga xam ne maa ngi leen di féliciter avec à leur tête Momar Dia ñu ni monsieur le maire suñu sañoon ASC ñu jox leen opportunité vacances yi nekk bañ a nekk vacances yu nul ñu daje def compétition bu bu sen ba tey ji final la def naa fête rek moo am ASC Léona bu cité sëñ Mansour Seydi Jamil di ko fubal ak ASC Kër Bakar liñ si doon ñaan yàlla defal nañ ko si yàlla yàlla may ñu eggale ko si jàmm waa defe naa ni euh, depuis ñu jógee ci locale yi am na loo xamante ni nañ ko waxee woon ñu ngi ko ni jëfee maanaam dañuy wax ni ñun li ñu tax a jog dëgg la ñun ñëpp ñoo àndandoo di jàppale le président de la république Macky Sall ci politique am fii ci biir Tivaouane te nag taxaw taxaw tem pour lépp loo xamante ni lu mu fi war am mu am ko fi la wante tamit wane na ni ñun Tivaouane rek moo ñu ñor loolu mooy wane muy euh, le député Cheikh Tidiane Diouf sànq Mamadou ku mel ni Mamadou Ngingue bu APR mi ngi woon moom également ci kaw tribune bi Abdoulaye Ndiaye Ngalgou même monsieur le ministre am na ñu mu yónni ñoo xam ne ñu ñëw teewal ko fi loolu moom nekkul lu ñuy théoriser lu ñuy pratiquer la ndaxte defe naa ni lu ma xewle ñoom ñoo ko xewle ñoom it lu ñu xewle man maa ko man maa ko xewle loolu moom maa ngi ciy dalal xelu képp koo xam ne bëgg nga président de la république Macky xam ne suñu taxawaayu démb ak bërki démb mooy suñu taxawaayu tey si jàppale ko ba li mu bëgg ci Tivaouane bëgg ci Sénégal en tout cas ñun duñ ci sonn duñ ci tay ba tànk mi ngi koy bëgg xam nañ ni mooy li gën ci Sénégal dinañ ci xar suñu tànk tubéy jërëjëf